wane gars yi ñun dëgg rek moo ñu ñor. est-ce que dëgg. te dañoo jiital suñu diine ci lépp lu ñuy def ak lépp lu ñuy wax. ba suñu diine bu nameetu mu rànk dañ koy xeexal ba mu jeex. li nga wax mooy dëgg. ñun Sénégal la am li ñuy wax te di ko xeex nga gis ci sa bopp. I don't give a damn about it. gis nga ñun li ñuy wax. dëgg rek moo ñu ñor te dëgg googu moo neex yàlla keneen ku mu naqari. noonu li lijjanti yu ñu ko bàyyi faal non non. yaa ñu ngi teewal dëgg te teewal naa fekk yaa ngi jëflu. I don't give a damn about it. keneen ku dëgg saful rek. c'est parce que yow doo nitu dëgg. dëgg rek moo neex yàlla moo ñëkkate moo mujj. li nga wax bu ko defee ñu jublu ci coowal avion bi ndaxte boobu ba léegi chaque jour nit envoyé ma message dama lan ngay xaar ci avion bi président jënd. ah enfin. mais nekk benn nit xamante ni bala maa wax ci dara dama ci bëgg am ay information yi claire ba nga xamante ni bu ma dikkee di ci wax rek day yomb. dëgg du romb nopp. di leen wax ne man bi ma xëyee gis naa journal yi tiitre ko. Hmm? ma xool écriture bi dama jox soixante mille francs. xam nga sompat yi neexul. ma def ni samay bët. mu may 60 millions. ça c'est extraordinaire. ma yëkkati waat journal bi summi samay verre sol yeneen verre mu yëpp. ma xool ne nii. concentré wu ci. bi ne nii. gis 60 milliards ma xool bu baax xam ne kat lii 60 milliards la mu ma ci saasi. ak ah, rajam ma rajam. mën naa wax wolof mën naa wax bambara tamit mais damaa tiit ba wax ko ci français. dama ne waaw qu'est-ce que c'est yaa. Ah? Hein? sama yaram tàng ma dolli wat français yi. qu'est-ce que c'est yaa. Eh, eh, je sais pas bien comprendre.

erreur bu mag la. nga gis ay nit yoo xam ne patt wuñ laggi wuñ. mais seen njaboot ñoo leen tiis. seen njaboot moo leen yëm. ndeysaan. ndaxte école yi ndaw ñu bari ñi nga bàyyi jàng du seen coobare. ko si laaj lu tax nga bàyyi. mu ne sama papa amatul lu ma fayee. loolu dafa ñaaw nañ waxante dëgg dara mënu ko justifier. mais c'est bizarre. te président nga la gëstuwaatal askan bi sonn nañ xiif nañ. Macky Sall nañu gëstu askan bi parce que trop c'est trop. te man sax li ma jaaxal ci ñu jékki-jékki xëy jox ñu benn information yi dañoo jënd avion. man de damaa jàpp ne boo nekk ci dëkk bokk kook ay nit teg si nga jiite leen boo jënd dara da nga leen a war a tàggu xanaa. li wax mooy dëgg. bu seeree sax ñu ne la carte prési li dafa seer 60 milliards dafa bari waxaaleel. ah. wala léegi waxaale dañ koy tere ci réew mi. moo ma jaaxal. bëgg nga avion kay. nee na la 60 milliards. fayal 9 millions 500 mille. la ilaha illallah. premier prix waxaale rek à tout moment mën naa wàcc. waxaale moom fi leen ko fekk te fi leen koy bàyyi mais 60 milliards rek nga daal di gën a fay ku am xaalis rek moo dul waxaale. pour respecter les gens yi. te bu ñu waxee nga ne réew mi amul xaalis dañoo nekk ci Covid. amul xaalis si ñun mais kon am na xaalis si ñoom. assi ah moo tax président jàppee boppam benn milliardaire rek lu mu nam rek toggantu ko. bu toogee ba tey ba 11h mu am envie. Euh, dem ndekkee ji dem añee ji Dubaï. il prend un vol mu dem. amatuma équilibre. président pour moom moom moom réew mi rek. yërëmul sunu askan. ndaxte ñun askan bi ko dañuy nëbbu rek. xam nga li gëna ñaaw moy neub gi ñuy nëbb askanu dafa ñaaw si ñaaw trop la def ba tax na buy def dara sax duñu tag ñun dafa melni amuñu indépendance ba tay ci loolu lay rôle indépendance mo am fi ñun dégg rek lañ ci am yow lan moy sa problème ah balle ma samay bor ñu bal la ba pare ndekete xaas bi yaa ko denc ginaaw juste ñu bal la dette bi ba paré nga ñew jëndé ko avion fi réew bi li fi nek kenn mënu la ko wax ku ko bëgg wax rek sa mam sey trop c'est trop Macky Sall limu def xawma ma nan la ko défé parce que bi ñu yor ña màggatut avion bi mëna dem fu ne y avait des yoo xam ne mën na ko jël fan la teg non man non man franchement je suis désolé avion bi moom am na lu ko jiitu xiif gi nekk ci dëkk bi dëkk bu mett bi ak xëyum ndaw ñi leneen ak leneen. dëgg du romb nopp. fi ñu toll nii war nañ xalaat leneen lu commandé avion. wax nañ dëgg kay. mais ñoo mën a fekk. i maître yaa wax lii. maa ko wax. ne avion na lu ko jiitu. avion ñu ko soog commandé kon. avion kenn wax en tout cas yëguma ko dégguma ko fenn wala dañoo informer askan bi te man yëguma ko informé wuñu askan bi ba pare maître bëgg a taxaw fii di wax lu ko neex ay waxi ku daanu ci saret kàcc rek garamoo yow maître tey duma la tontu de au ma sax temps pour tontu la ndaxte li nga wax fii yépp da nga ko répété yow ak sa copain xaaral tegal gars cassette bi kon gars yi nañ ko teewlondoo nañ ko dégloondoo fuñu tollu ñu ngi wax mel mel mel mel. way tok sa ordinateur di tapé di kacc kacc kacc kacc suba ngon di saga mel mel mel mel. tapé di kacc kacc kacc kacc mel mel mel mel. di kacc kacc kacc kacc mel mel mel mel. eh ay li lii lan la xali lu bes la wala da ngeen doon répéter yu gumako di kacc kacc kacc kacc mel mel mel mel. ba mani li ngeen japp temps la waaye neex na Mel du ba tok na waye bu ngeen ko gëné soufel mu gëna neex. bu wàccee mag man cee foo de. mbëll mbëll mbëll mbëll. di kaj kaj kaj kaj. mbëll mbëll mbëll mbëll. tapé di kaj kaj rek. su wàccee ba wàcc ci suuf. Hmm. ba nooy ba nooy hmm. mag mën cee foo. mbëll suuf. mbëll di kaj kaj. mbëll di kaj kaj. ah. mbëll nag li mi lii rek fi ne réew mi lii rek fi ne tuuti sang ma xol ba xam ni dem wala narul dem. ba ma ni li ngeen jàpp naa la. kat kaj ci kat ci suba ngoon di saaga. tapé di ni ni tapé di ah temps la kat <laughs> temps ñoo man de wax.